ahousubillahi min asheytaan rajim bismillahi rahmanirahim asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh mbokk yi ñu ngi leen nuyoot baax te di leen ziyaara di leen bala ak baax di leen baal yéen suñ borom boole jégal bi jayel Mustafa alayhi salatu wasalaam barke Seex al ñoo ngi ziyaara Seex Muhammadul Muntaxa ak njabootu Seex al Xadim yëpp di ziyaara suñu xalifa senera ñëpp di ziyaara sëriñ Yuusu Mbay waaye di ziyaara bu baax a gi ñëpp ñoo ngi ziyaara waa daayira génération soppee sëriñ Sam Abdoulaye Cissé Samb ak mboolem njaboot gi ñëpp ñu fas yéene nag indi ab jaayante boo xamante dañ koy jaayanteeg sunu sëriñ sunu lépp sëriñ Sambay sunu soppe boo xamante ni moom lañ fas yéene jóg ngir jaayante ak moom ca liggéeyam bi nga xamante ni moo nekk Louga mooy institut islamique boo xamante ni maam Cheikh moo koy amal da ci fas yéene ànd ak soppe yi sëriñ Serigne Samba yi ñëpp rek kon loolu lañ bëgg indi tey bu ko defee incha allah ñu koy fàttali mbokk yi ñëpp rek. di ko bàyyiloo xel mbokk yi ñëpp képp koo xamante ne bëgg nga cee dugal saw ñaq di tàmbalee ci dërëm ba milliard bu ci kenn xeeb bu ci kenn yëpp ndax yàlla dogal na moom laajuñu ci turu sëriñ Sambay waaye dana fas yéene jaayante ak sëriñ Sambay ndax kenn ku ne xam na ne am na lu la sëriñ Sambay defal am na fu mu la féete loolu nag moo tax ñu fas yéene waran koo wutal àllarba war koo jox àllarba moo tax na ñu jog jaayante ak moom ngir fas yéene ànd ak moom ci liggéeyam bi nga xamante ne moo nekk moom la ko maam Seex di taxawal te mu nekk ca Louga kon nag ñu koy fàttali soppe yi ñëpp fu nekk ci àddina rek képp koo xamante ni bëgg nga ca dugal sa ñaq rek dëkk boo nekk rek am na jëwriñ ju fa nekk joo xamante ni man ngaa jokkook ak moom wala soo ko amul dinañ dugal numéro yoo xam ne nekk na Sénégal wala fii ci eh, Europe wala fu mën a doon dinañ fexe ba kenn ku ci mën a bëgg a dugal saw ñakk di nga mën a fexe ba jaar ca yoon yooyu noonu ngir mën caa tàbbal saw ñaq kon daal ñu ngi koy fàttali mbokk yi ñëpp rek di ñaanal maam si yaxamay mu yàgg lool di siyaar mbooleem eh, waa daayira bi ñëpp rek te ci soññ ñëpp rek ñu fas yéene cee jaayante daal ba liggéeyam bi daal ñëpp xam ne daayira yi soppe yi ñëpp jóg nañ ànd ceeg maam si yàq kon ñu ngi leen di siyaare baat baax a baax te di leen jéggulu xam naa mboolem fi ñu bëgg a liggéey bi yëpp xam naa des na ko dugal ci écran bi su ko defee ñëpp gis ko rek incha allah rabbi ñu ngi siyaar ñëpp di jégalu ñëpp di leen baal ak di leen baal yéen suñu borom boole jégal bi jël ma sama alayhi salaam barke seen xalam jërë ngeen jëf